waaw mbokk téléspectateurs yi comme li ñuy wax rek bés du tuuti borom lay tollool actuellement nag ñi ngi ci daj dëpp gi borom bés baa ngi ki waral coow li moo ngi nii xewle Sénégal yëpp ko un peu partout ñëw wuy si ko kaw maa ngi lay ziar. waaw maa ngi lay nuyu Ciss Kao di la nuyu yow tamit bu baax a baax a baax a baax. maa yaa ngi si jàmm Sénégal yëpp macha allah waaw. di nuyu ñëpp macha allah di nuyu fiex TV aussi macha allah di gis liggéey bi ne rafet na bu baax a baax a baax a baax macha allah. kaaw ñu gis ne que événement bi def nga ko daaw ren nga defaat ko àdduna bi yëpp wuyu si la. donte cees dafa am ñaari événement yu mag yu fi xew. Mhm. mais teewul salle bi tey fes del ah. ñu bëggoon nga dellusiwaat tuuti ci bës bi. ak nit jiite la wuyu si rek. waaw loolu mooy yëgal nit ñi rek boo yëgee nit ñi rek nit ñi ñëwal la àdduna li ci am solo mooy defaral sa xol yéeneel ñëpp jàmm boo yéeneel ñëpp jàmm rek ñëpp bàyyi li ñuy def ngir yow. boo ne ñëpp jàmm rek ñëpp jël seen temps ngir yow nit ñi kenn moomu leen. dëgg kenn moomu leen. dëgg la macha allah. dëgg la bàyyi. kii. ndeysaan kii mooy maalaw. kii njëkk ci ñun mujj ci ñun. mooy kaaw. ndeysaan bu xewlee. adduna moo ñëw. population moo ñëw. kii population du Sénégal. kii askanu lawbe rek moomu tugu xam nga lu neex ci doomu aadama ibu njëkk ma la ñë lawbe ya moomoon waaye kaaw bi àdduna ko moom kaaw mi kaaw bu àdduna la ñaanal leen ñu ko parce que bi muy ñëw leer na góor góorgóorlu suñu jëmm ji góor ñëwel nii góor ñëwel nii leer na jëmm ji kaaw bi ngay ñëw fii mhm. fekk ñu mhm. amuñu kaset amuñu dara mhm. nga ni ñu kaale ñu liggéey loolu lool lool loolu démb kon dañ lay ñaanal jàmm ñaanal la gudd fan nga yeggale nga yeggale yeggaleel kaaw kontaan nañ kontaan nañ sa kaaw moo ñu may fit man su ma amee fitu def mise en scène c'est grâce à kaaw moo ni ma booy dëggalal sa bopp tu peux le faire te mën nga ko te def naa ni boobu ba tey rëcc wuñ ko biñ nekkee ak moom 2014 ba tey du démb du bërki démb mais ñu ngi koy sant bu baax a baax di ko gërëm di sant soxnaam ku baax la ku ko nangoo muñal la Fatma ku baax a ngi noonu lu ñu wax ci moom rek lu ñu wax ci moom rek am na lu des ceebam tàngalaatam a gën a neex ceebu Fatma <laughs> tàngalaatam si nga kii nit ku baax nit ku am connaissance nit ku diiñ nit ku xam li mu bëgg Olof Njaay danni tungu ne rek du teew ñuy nataal kii sunu nitu démb la woon tey dikkul tey damaa sonn waaye dama ni man faaw ma jaar ci bis sa bis ndax gor bu la defalee lenn rekk war ngaa mën a def tamit sacrifice ngir yow gor kaaw foo bëgg jublu yàlla la fi yiw yàlla jubal aar bi ngay def yàlla yàlla may lu bare bare bare yow borom baax nga yàlla kaaw yàlla nga yëkkale amiin nga yëkkale